gannaaw ba travailleurs yi taxawalee ab grève mel na ni mairie yu si bëri ñu ngi fees dell askan wi nag jaaxle lool ndaxte ñu si ëpp seen bëbët sottiwul ki nag jóge ba Kër Massar am na lu ko metti lool ndaxte mu ngi yitte waay kayitam waaye fekku fi kenn mel na ni nag ñii nii di liggéey si mairie bi respecté nañ seen grève sama extrait ak euh, ay certificat de mariage yu ma waroon déposé en urgence ndax dañ ma ko laaj fee mais ma ñëw ñu ne dañoo grève. bi nag di ab docteur di wuyoo ci turu Michel jóge ba Thiès ngir rek lijjanti ay këyitam moom mu jur am li ko soxal. Eh c'est affiché que. dama ñëw tey ci mairie bi gis ñu dañoo grève bi mooy ñaareel yoon ma fi ñëw ngir wut ci papier donc jafe na pour ñun ñu am fi ay papier ndax grève bi. gannaaw ba ñu wëree mairie yu bëri fii ci Dakar. mel na ni nag loolu la ñu nemmeeku fépp mu di mi lolou nak askan wi diko ñaawlu bu baax. excès de naissance. Euh, bu sama jarbat euh dafa déposer examen quoi. donc euh, examen donc professionnel. je ne maîtrise pas mais depuis presque quinze jours lolou lay daw. mën na ndaxte examen bi bo moytuul à cause de cela et ça est arrivé encore l'année passée. Hmm. Ah. À cause de ces grèves À cause de ces grèves, oui. oui. dama déposé ces extraits, mais ça fait deux trois semaines que je ne maa ngi jaabante te gisuma dara chaque fois dañuy ñëw ñuy renvoyer la grève grève grève te doo comprendre ni fin de semaine fait. ils étaient en grève ni apparemment dañu nekkaat en grève encore bon mais bien sûr, c'est affiché il a affiché xaw na tardé parce que les gens sont informés gens.

sama carte d'identité laa doon defar parce que instant bi dama ko soxla pour su may def bag incha allah laa ma ko soxla dama ko teel bëgg teel a préparé waaw. waaye suñu sukkandikoo si ñenn nit ñi lee mel na ni du service yëpp a ndaxte am na yoo xam ne ñi ngi doxal seen activité muy ñoo xamante ni ñooy lijjanti wàllum kayitum déclaration néew yi pour ñi nga xam ne seen mbokk ñu génn àdduna. donc ñun service minimum rek moo ñu fi tax mooy maanaam donc dañuy délivrer ay permis d'inhumer loolu moom ñu tax a toog mais pour le moment amuñu benn kayit bu ñuy délivrer donc voilà fi luma fi andi moy papier permis d'inhumation la amone parce que dama amone ben décès bi nga xamantene nouveau né la quoi mais yalla def na lu gën ba ma ñëwee fii lañ ma yabal pour ma am ci papier yi mais yalla def na tamit amna ko quoi wa may nañ ma papier bi quoi malgré grève nañ mais gis na ci tamit quelque ñu ci liggéey quoi. hmm waaye fi nak ci centre d'état civil bu Grand Dakar dendok hôpital gaspar Camara du benn. les services la ñu gis ñu liggéey tay ba pare li ci gëna graw dama interpeller ben femme bu ñu fi ma gis ko muy taxaw ben waay fi mané ko xana amu leen service minimum mu ne mo non amuñu service minimum té pourtant man dégg na dans la presse hier ñu né amna service minimum mais man gisuma ko fi ne wax dëgg yàlla. mu ne ma mom dafa ñëw fi am liggéey bu muy liggéey si biir rek mais kenn liggéeyul ben liggéey service minimum loolu bokk si li nga xam dafa ñu handicapé suñu suñu activité yi franchement. grève bi nak amna ñu mu teg jafé jafé yu metti ndaxte jamono yi ñu gën a yittewoo seenu këyit lañu ñëw te mënuñu ko am ñu si ëpp nag jóge fu sori lool tey nakkarlu lile ku si nekk si ñoom nag di ñu xamal loraange yi nga jànkoonteel. non moom dafa war a karandam dafa jeex mu war a euh, déposer euh, passeport ñu ne ko il faut nga déposer passeport te léegi externalisation bi fii la nekk si centre principal fii mais moom actuellement nekk fi mu il est Paris man la ko envoyé ma ñëw war ko ko yónnee daar daar. malheureusement nous avons fait une ñu grève. C'est vrai que grève bon ñun ñu am droit bon mais euh, là apparemment du 8 jusqu'au 14 mooy daanaka une semaine de grève C'est déjà semaine passée nous ñu commencé ah ben, C'est bon. bah un domino quest ce que vous voulez. mënuma nekk Thiès tamit di ñëw fii Dakar di déposer Mon tax lu ci si rendez-vous yi ma daan amal dama annulé. sont sont annulés c'est tout hein? récupère extrait qu'est-ce quest qu'est-ce que c'est donc ma ñëw fii du ma fekk lu ma neex te du ma fekk te duma jot sam lu ma lu ma lu ma fi indi moo tax daal euh, daf may perte temps dina may yàqal lu bëri loo xam ne mënoon naa ko dox si diggante bi quoi. bon maa ngi ci domaine euh, élevage bi quoi maa ngi liggéey ay euh, ginaar élevage ginaar quoi. war tamit benn instant parce que fu mu nekk sori na xam nga maa ngi ci dox kilo distance bu sori pour ñëw liggéeyanti loolu kese pour delluwaat ba foofu saa su ma fi ñëwee du ma am lu ma bëgg. liggéey kat yi nak nek fi ci mairie yi ñu ngi xamal ni ñoom itam di dé andu tak seenub sago wayé mel na ni seenub jafé jafé motax ñu taxawal ab grève bile. wa en terme de recette bu ñuy xolé état civil rek moy bu grève amé suñu témbre du jar parce que nit ñi duñ leen defal extrait duñ leen defal papier yu ñu ut té yooyu dañ ci def témbre donc lool manque à gagner pour commune bi voilà en terme de recette pour les témbres askan wi nak di ñaan nguur gi mu fexé ba saafara yi lé gal encore ngir rek ñu mëna doxat doxaat seen activité réew mom segment yi bu su benn bu su taxawé rek daanaka taral na affaire quoi vraiment man dal non la gisee franchement suma su saw nag ñu gaaw leen na li jënd seen bagage yi bu ko défé euh, grève bi daal di jeex ndax sénégalais dañu soxla parce que amna na ñoo xam soxla nañu këyit pour dent dent ñi faatu ñu jox nañ këyit pour yóbbu seen doomi wara tukki ak surtout xalé yi nga xam dañuy nekk en période

da ngay war a xëy sax benn sept gis ñu xëy dix heures waaw loolu moom bëri ci quoi. mel ni nag grève bi respecté nañ ko bu baax fi ci mairie yi nag ñu si bëri tëj nañu seenu buntu waaye ay jafe-jafe laaskan wi di am ngir rek mun am seenu këyit ndaxte soxal na leen lool ñoom nag ñuy ñaan nguur gi mu def kéem te lay kattanam ngir rek mbir yi mën a soppeeku.